heure bu ne ñëw na fa mais nag dama bëgg sama koñ muy ASC Guy Sombel surtout maag ASC bi dama bëgg Guy Sombel man dama naan lépp lu ma am te bokk ma ko waa Guy Sombel yàlla bu ma ko yàlla may parce que man ñoom laa bëgg waaw ASC boobu di Guy Sombel mhm. tey buñ ko tegoon tey mu mel ni tey ASC bi lañ jël muy football coupe d'Afrique tey nan ngay gisee loolu ah kontaan tey mm. parce que damay reefe nii damay am rêvage nii mm. ASC bi dina mës am lu bari parce que bien vrai que mës nañu am coupe mais yàgg na mais nag man sama njortu may na ma ni ASC bi dina ami coupe parce que ña fa nekk ñu am taxawaay nu ñu am pësteef lañu te ñoo ngi jàppale ASC bi guddi ak bëccëg parce que dañ naan ko lim juum mais ku ci mel ne Assane Ndoye Ousseynou Diakhaté Bekay Samb Youssou Thiam xam nga ku luy Aline Sow ñoom ñooñu ku lim juum ñoo ngi jàppale ASC bi ki taxawaay boo xam ni ah ASC bi ñun yaakaar na ni fa nu fa bëgg mu fo fa ëllëg dina fa dem yow ñooñu nga lim ñëpp. Mhm. te ASC bi benn a jël comme nga ne mais mbiru suñu borom la parce que bu ma dee xool ci cadre match rek bu dee joloo euh, joloore hmm. muy koñ bi ñu taxaw tey. Hmm. moo dem ba am coupe ma damay am yaakaar ni ASC bi dina mës a am coupe. Hmm. waaw parce que metti woon na jaloore dem ba dee woon daal maa rekk rëtu doon mais dem na ba fayoon. yàlla di leen jàppale ren tey ba jaroore am coupe boobu ñu nit dañuy am courage xam ni ASC bi dina mës a am coupe. dëgg la waaw tey bu loolu weesoo euh, Sénégal mooy football tey. waaw tey Sénégal la ak kan. danga may xaw a dama lay xaw a réeral waaw. eh nag xam nag xam tamit problème bi mooy que ni yow yaa ngi naan da yëngu si wàllu ASC bi kon war nga xam euh, football xanaa <laughs> nag. xam naa daal yàlla. Euh. yàlla may ko ndam. comme dina baax incha allah parce am jom nag ñoo fa nekk. te bëgg na Sénégal kon tey sax amoo Sénégal kanay football Sénégal Ghana mooy football. wala Sénégal Côte d'Ivoire wala Sénégal kan. <laughs> Pape Baye en tant que femme développement di yëngu tamit si wàllu. Pape Pape Pape Samba léegi kon baal ma jàppale léegi Sénégal Zimbabwe ñooy football. ah waaw ok waaw kon yàlla na nu yàlla may ndam ci comme Zimbabwe. ci comme Zimbabwe. kaw kaw kaw ci kawam ci ah, kaw Zimbabwe léegi kon Sénégal tey si Coupe d'Afrique bu demoon ba dajeeg Brésil nooy def final. ah bu dañoo demoon ba dajeeg Brésil nooy def final. waa Pape xam nga boobaa. Euh. dina metti lool lool lool lool euh. parce que ñun dañuy am euh, yaakaar rek ni mm. toujours bu ne mm. Sénégal mën na am ndam yaa ngi dégg parce que boo xoolee li ñu wane barki dem bien vrai que metti na lool mm. ah parce que naar yi dañu xaw a gaaw nag ah. mais wane nañ fa seen jom wane nañ fa seen jom hmm. te dèjà man su ma nekkoon ci seen côté di leen conseil hmm. conseiller rek man hmm. dama naan leen bu nu bàyyi waaw bu nu bàyyi nañuy dem rek parce que dina ñëw bàyyi woo ma bàyyi ma bàyyi déedéet kon bu Sénégal daje woon ak euh, Corée si coupe d'Afrique bi non du ma bàyyi du ma mës a bàyyi tànk que amuñu coupe rek du ma mës a bàyyi li ma ah. dal ci passif rek ah. moo may dal ci Sénégal ah. li ma dal ci ay ASC Pastef moo may dal ci Sénégal parce que dama bëgg man soo xool ci sama activité yëpp mm-hmm. dama bëgg sport waaw ah, dama ko bëgg surtout match. surtout nawetaan yaa ngi gëstu sport. surtout nawetaan nawetaan moom eh. dama ko bëgg parce que. Eh. boo demoon euh, lu mel ni Guy Sombel. Hmm. boo nee taxaw ànga sëñ Faar rek. ne eh. présidente s Guy Sombel rek defe hmm. naa dina la indi. ci soxna Ndoura Ndiaye waaw parce que man defe naa koñ ba rek moo ma ñor. waaw gis ngeen ko euh, gis ngeen ko mbokk yi. waaw moom nee na dafa bëgg nawetaan. Mhm. te nee na mi ngi gëstu match muy euh, Sénégal Zimbabwe te nee tey bu Sénégal ak Brésil daje woon ci Coupe d'Afrique bi mhm. gagné la Séné day bëgg Sénégal gagné. Mhm. comme ni ngeen ko gisee Sénégal Corée tamit ci Coupe d'Afrique day bëgg Sénégal. tamit mhm. waaye Sénégal Danemark bu ñu daje noo koy gis. Pape comme li ma la ci foofa. Mm. comme li ma ci boobu. Mm. parce que yow nga man sénégalais la toujours bu ne ndamu réew mi la ñuy laaj kuy laaj sa ndamu koñ. Mm. déjà réew mi du jot a wax. dëgg la dëgg nga dégg ku bëgg sa koñ arrivé da ngay bëgg Sénégal dëkk bi nga ne toujours bu ne am fa ndam loo xam ni. Mm-hmm. ndam li kat dañ naan accam waa Sénégal parce que Sénégal bàyyiwul kenn ah ñun ñëpp ah ci lañ bokk. waaw am na benn leader bu naan El Malick Seck. Hmm. dèjà moo fa nekk. est-ce que mi ngi waaw moo ngi ciy yëngu nag parce que même nit ki euh, mere sa nit ki sax bu mu tax boo wax sa euh, mbaaxu morom. Hmm. parce que El moo ngi yëngu ca koñ ba. moo ngi def El Malick Seck c'est vrai que El Malick benn gaala bu dekkoon noon ca koñ ba rek wax dëgg yàlla xale bu amoon taxawaay. Hmm. parce que man miin naa ko tàngawu Mari Kayre mu ñëwoon di wut ay jaay boobu mu ngi jaay ay journal stade euh, Maniang Soumaré xam nga loolu yàgg na. mais yàlla tey may ko ndooma tànk bi nga xam ni xëy na sunu borom moo ko cërale mais it euh, ma lay wax ni a Samb sama benn frère euh, koñ bala dëkk ma ngi ciy taxawaay taxaw bu am solo parce que taxawaay bu am solo boobu ma ngi def ay social ci koñ bi parce que ci ouverture yi indi woon na ay fourniture may ko xale yi ci école yi moo ngi defar lu mel ni école Marie Kéré Diaw mooy defar lu mel ni école Mbambara ba pare mu ngi def ay social daal ci koñ bi moom it leader la moo ngi ca koñ ba Mm. waaw ma ngi ca koñ ba di def loolu ñëwul mm. xam naa rek euh, jeexul mën naa am ni xele xele ma ngi ci defa yegsi rek lu yàgg yàgg xam naa ni su déggee sa rumeur yow bu déggee mm. dina yegsi ca école ba mais dama ne la kon leader ba nga ma laaj ca koñ balaa lay wax muy El Malick moo nekk ca guy sombel ah. leader la boo xam ne daal moo ci gën a bi ki des muy Ablaye Fall moo ngi ci côté Ablaye Yakim moom it moo ngi def social bu baax ah parce que bi ñu fubalee nawetaan ba pare boole nag 4 ASC muy ASC Guy Sambel mm. ASC Guy Sambel def ASC Arlem mm. def bu Bambara mm. boole ci Deqale ak Cosmos 5 ASC yooyu mu boole leen def ci lu rafet nag defal leen ay journée yoo xam ni euh, defe naa képp ku ko dégg rek euh, sa sa rafetlu nga ko parce que loolu mooy liy boole ay nit parce que nawetaan dafa doon loo xam ne day indi rànkiñe ci ba indi rànkiñe ci biir mu def ki taxawaay bu am solo ñun bu ñu tànnee ñun waa Guy Sombel ASC Guy Sombel dañu tànnoo journée kaamil mu defal ñu fa kaamil bu am solo jël ñee defal leen ay tànn biir ak yooyu mais teewul doon nañu benn bloc di rafetlu taxawaay moom it euh, Ablaye Fall di rafetlu taxawaayam ci koñ bi di leen wax daal taxawaay rafet na parce que mënoon na nekk ci koñ bi it bañ a yëg waa koñ bi mais kenn ku ne li nga ci côté bi nga mënee yaa ngi koy bay sawaar yaa ngi koy def rek pour am ndam ñuy ñaan yàlla ñoom ñooñu li ñuy wut yàlla na ci yàlla def jàmm yàlla leen yàlla may ndam ñoom ñëpp daal ci li wut bu gënee ci ñoom may gërëm koo xam ni Falilou Diène la muy coordinateur wu Thierno Alassane muy waaju baax nag ñu may jàppale ci sama équipe parce que Falilou suñu coordinateur la ma moom dafa baax dafa ñu bëgg ñun femmes yi Falilou dee teg ñun lu baax Falilou di jàppale ASC yëpp su ma fa demee du ci teg baat dafay yëkkati ba comme daaw jéeg rek jox na ma ay dossard may ma ay bal loolu it loolu it dañ koy rafetlu dañ koy rafetlu parce que mën na toog ko ñoom rek ne ASC bi dëkkuñu mais xam na ni man ca ASC balaa dëkk mu ñuy jàppale ci bëri Birane dama juum ci côté bu ma parce que Birama Samb dafa nekk ak El Malick ca koñ ba bien vrai que El Malick mësoon na nekk président wu ASC Guy Sombel mais ren euh, defe naa Moussa Sarr moo fa nekkoon mais teewul chaque regroupement ma da koy dem mu jox ñu rôle li ñuy regroupé te mënoon na ko jël bañ koo ñu indi mais saa yi waree match ci guddi gi damay dem taxaw Birama mu jox ma enveloppe bi su ko defee dama ko indi la groupement ñu rafetlu taxawaayam di koy ñaanal yàlla moom it mm. lépp rafet na dara ñaawul guy sombeel moom defe naa ni ñëpp ñoo bëggante rek di rafetlu di sant waa koñ bi fi ma taxaw kon gis ngeen ko ah. niñ ko gisee ñi ngi taxawoon ak ki ñuy wax euh, soxna Ndoura waaw moom xamal nañu lu bari ci fubal mm-hmm. xamal nañu tamit lu bari ci li nga xam ni mooy goxam mm-hmm. xamal nañu tamit lu bari ci dëkk bi nga xam ni mooy Thiès